Allimni TV canal Allimni. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di ñaan yàlla yàlla defal leen tawfiq ak jàmm. kon bii mooy bindu juróom ñetteel bi ci bind yi nga xam ne dañ ciy leeral wéetal yàlla ci bind yi weesu bi weesu ñu ngi woon ci wéetal yàlla ci jaamu giñ koy jaamu nga xam ne duñu jaamu leneen lu dul borom bi tabaraka wa taala loolu nag mooy laa ilaha illa kàddu gi gënal yàlla ci kàddu gi fi mu ne nii loolu lay firi moo di ne duma jaamu kudul borom bi tabaraka wa taala mbokk yi wéetal yàlla fi mu toll yàlla dafa rëy lool ba jéggi dayo yàlla yi ni mu ko bëggee dafa jéggi dayo moo ko gënal julli moo ko gënal woor moo ko gënal aj màkka moo ko gënal a joxe asaka moo ko gënal lépp loo xam ne moom boroom bi tabaaraka wa taala koy bëgg ci yow jaam bi li ko ci gënal mooy wéetal yàlla looloo tax mu def ko mu doon kàddu gi nga xam ne moo ko gënal ci kàddu yi muy laa ilaha illallah kon nag boo koy wax kàddu googu nga xam ne moom la yàlla def moo li gën ci zikar sax yonent bi sallallahu alayhi wax ko muy laa ilaha illallah war naa doon kàddu goo xam ne gooy xam la gooy maîtriser la ba doo ci juum mukk seytaane it loolu moo moom la gën a bañ ci lépp lu muy bañ muy kàddu googu seytaane lépp lu muy bañ tey kàddu googu la ci gën a bañ lépp loo xam ne seytaane bu ko nit ki defee dana naqari seytaane tey wéetal yàlla moo ci gën a foor moo tax nit ki wéetal yàlla ku seytaane bañ lay doon waaye nag nañ xam ne ñaari mbir a am mooy mbëggeelug yàlla ak mbëggeelug seytaane merum yàlla ak merum seytaane yàlla lan moo koy bégloo nit ki wéetal yàlla te du ko bokkaaleeg dara loolu mooy bégloo yàlla seytaane lan moo koy bégloo nit ki di bokkaale yàlla te du ko wéetal mukk yàlla lan moo koy merloo nit ki di bokkaale yàlla ci dara loolu mooy merloo yàlla mer gën a yi nag seytaane lan moo koy bégloo mooy nit ki di bokkaale yàlla bañ ko wéetal loolu bu ko seytaane amee day bég ci kooku yow nag léegi yow nit ki yaa ngi nii tànnal ñaar yi bu la ci neex bu la neexee yàlla bég seytaane mer bu la neexee seytaane bég yàlla mer waaye nag mënoo leen a boole moom maanaam yàlla bég seytaane bég déedéet parce que ñoom ñaar ñëpp bokkuñu lu leen di bégloo lii bégloo kii mooy naqari kii lii naqari kii mooy bégloo kii léegi nag yow xoolal koo ci bégloo ku ci gën a yay yàlla di moo la sàkk moo la moom léegi moo gën a yaay nga bégloo ko wala seytaane defe naa ne suñ borom bi moo gën a yaay moo tax suñ borom bi ne wallahu wa rasuluhu ahaqu ay yurduhu in kaanu muminin looloo tax nit ki bu fekkee ne yàlla nar na ci moom gindee ko nar ci moom jàmm nar ci moom ëllëg mu dugg àjjana daf koy ubbil dënn bi ba mu bëgg wéetal yàlla moo tax suñ borom ne ne afaman sharaxa allahu sadrahu lil islaam fa huwa ala nuurin min rabbi ki nga xam ne yàlla dafa ubbi dënn bi def ko muy nangu lislaam lislaam mooy lan muy wéetal yàlla googu ba nga xam ne daray bokkaale du ko bëgg kooku yàllaa koy def ci xolub jaam nee na kooku dafa nekk ci ak leer goo xam ne ci boromam la jóge ka ca des nag mu ne wa ida dukira allahu waxdahu isma azzat qulubu alladina laa yuminuuna bil axira wa ida dukira alladina min dunihi ida hum yastabshirun nee na boo fekkee dañoo tudd yàlla dong ñi nga xam ne ñoom gëmu gëmuñu yàlla mooy bëgg ñu yàlla seytaane lañ bëgg mooy gars yi seytaane nee na seen xol day metti ñu révolté wu maanaam bu dee ne da ngaa tudd wéetal yàlla naan yàlla rek lañ war a defal nangam yàlla rek lañ war a jaamu yàlla rek lañu war a wéetal nee dañuy révolté wu ñeññi isma azzat ñeena nag boo fa tuddee yeneeni mbir nag idahum yastabshirun nga gis ñuy bég mooy kon boo fekkee da ngaa tudd ya ñuy jaamu ñoom yu dul yàlla ya ñuy fob di ko dendaleek yàlla nee na nga gis ñu bég waaye boo nee nag yooyu yépp léegi nañ ko defal yàlla kese te buñ ci boolee booleeti leneen nga gis ñu mer léegi kon yow nattal sa bopp ndax seytaane nga àndal ci yoon te yëgoo ko wala yàlla nga àndal ci yoon léegi loolu pour nga bëgg boo ko bëggee xam koo ci àndal lu yomb la ndax wéetal yàlla bokk na ci yi nga xam ne danga ko bëgg ci sa xol ndax sa xol bi yàlla ubbi na ko ba nga xam ne daal boo déggee waxtaanu wéetal yàlla wow waxtaan moom dalay neex lool loolu boo dee ne yaa ngi ko yëg santal borom bi tabaaraka wa taala yaa ngi ànd ak borom bi ndax lépp luy bokkaale boo ko xamee danga ko bañ danga ko sori même bu fekkoon ni sax daa fekkoon nga nekk ca même bu fekkoon ne say maam ca lañ nekkoon ndax pare nga caa génn loolu boo ko amee yëgal ne yaag borom bi yéen a ànd kon seytaane mi ngi mer ci sa mbir seytaane mi ngi naan kii di moom bëgguma ko waaye yàlla day moom di kontaan ci sa mbir ndax moom yaa ngi koy wéetal léegi nag bu fekkee ne da ngay gis ne lépp loo xam ne lu aju ci wéetal yàlla la moom neexu la ku koy wax dangay yëg ne sa xol bi day metti da yëg ne kii daal moom bokkuma bokkuma ak moom fu ñuy fu fuñ nekk kii daal dafa may daa mel ne daal moom sa daa yor ab ak rab rek di ko jam ci sama xol bi nga xam ne li muy wax lépp daal léeg-léeg sax doo ko mën a àggale dangay jóg dem sa yoon kooku yëgal ne seytaane mi ngi kontaan ci yow parce que bokkaale dafa nekk ci sa xol jàngoro ji def cee nekk seytaane nag day kontaan ci kooku kontaan goo xam ne day jéggi dayoo waaye nag na nga yëg ne seytaane nu mu kontaanee rek noonu la borom bi mere ndax danga koo bokkaale kenn danga fab ay nit wala ay jinne wala yeneen di leen teg palaasu yàlla te loolu yàlla gën a bañ loolu la yàlla gën a bañ lu muy bañ say jaamu yàlla yàlla rek nga koy defal jaamu yàlla mooy lan jaamu yàlla mooy lépp lu la yàlla digal moo xam ci alxuraan wala ci sunna ne la nga jaamoo ma ko kooku jaamu yàlla la sañoo koo defal keneen ku dul borom bi bu dee ne jaamu yàlla yooyu yàlla nga koy defal moom dong doo ci boole dara kooku sa laa ilaha illallah wér na bu fekkee ne nag yaa ngi koy defal yàlla di ci boole leneen ak leneen na nag lu mën a doon loola kooku mooy yaa ngi bokkaale yàlla jaamu yàlla kon lu jara xam mooy lan la lan mooy jaamu yàlla lu jara xam la bala nga koo juum di ko defal leneen lu jara xàmmee la kon moo tax danañ ko jagleel ay bind yu baree baree baree bari mën naa am dana ëpp fukki bind yoo xam ne dañ ciy xamle lan mooy jaamu yàlla di ko tudd benn par benn ay mbir yoo xam ne ay jaamu yàlla la te nit ñi léeg-léeg ñu di ci juum ba di ko defal keneen masalan ñu tàmbalee ci mbir yooyu maanaam loo xam ne ak jaamu yàlla la yàlla rek nga ko war a defal muy ñaan tàllal say loxo ñaan borom bi tabaaraka wa taala ma nag li ñuy tuddee ñaan ci wolof te fekk tuddul ñaan ci arab mooy masalan laaj xaalis wala dara comme ñëw ci nit naan ko abal ma dara may ma xaalis may ma nàngam loolu tuddul ñaan ci arab arab buñ ne ñaan moom doa lañ ci jublu mooy aajo ji nga xam ne danga nga koo am ci borom bi tàllal say loxo ne borom bi may ma nangam loolu mooy ñaan kooku ak jaamu yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne adduaau huwa al ñaan day mooy jaamu yàlla loolu mooy li ci ëpp solo ci jaamu yàlla mooy ñaan kon heure boo tàllalee say loxo di ñaan borom bi xamal ne yaa ngi ñaan koo ca boole ku dul yàlla rek xamal ne yaa ngi koy bokkaale loolu nag dinañ ci indi ay firnde ci alquran ak sunna lu baree baree baree bare ci waxtu waxtaan wi di ñëw incha allah kon booy ñaan fexee la wéetal yàlla ci ñaan gi ne yàlla yow rek laay ñaan de amma kenn ku may ñaan ku dul yow may ma nangam barakallahu fiikum ahsanallahu ilaykum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu علمني تي في قناه علمني